jëmalee ba ñu terminer saison bi ñuy terminer saison bi ñu terminer que championnat professionnel bi dimanche passé terminer que ci al anam yu rafet fas yéene nag également jouer la finale de la coupe de la ligue samedi incha allah ñuy ñaan yàlla ci mbaaxam en tout cas final bii ñu jublu yal nañ si yàlla yóbbu ci bisimilah rahmaani rahiim ñu football ko ci jàmm. génn ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, di féliciter euh, suñu mbokk journalistes yi nga xam ni ay partenaires wu ligue bi lañu gis nañu ni à chaque fois que conférence de presse yu ñu organisé yépp moo xam Dakar la moo xam Thiès la moo xam mbuur la ba moo xam Ziguinchor la moo xam Diourbel ñu ko def moo xam Saint-Louis la yépp les journalistes étaient présent et ils nous ont soutenus. Mieux, tout ce bon yoo xam ne liggéey bi def na ko ci ay avancé maanaam yokk nañu lu tubaab di wax quantifier amplifier nañ ko yokk nañu dara jàpp donc dafay laaj tey jii ñu féliciter leen bu baax a baax a baax di féliciter également club yi les clubs professionnels parce que club yi ba ñuy ba ñuy tàmbali ba ñuy door. de la ligue bi vingt huit club la woon tey jii ñaar ñoo si nekk donc nag ñooñu ameel nañ leen jukkal ci seen taxawaay Samsidine wax na sànq ñaari club yi dañoo am ñaari président organisation yoo xam ne seen taxawaay ci wàllu organisation dañ ko ràññee du tey mu yaba ak ak Seydina dañ ko ràññee ba ligue bi commencé cette année ci organisation dañu taxawal seen organisation wu équipe ba ñu ràññee leen si donc ñu ngi leen di félicité di di am yaakaar yaakaar bu wér que loolu ngeen defoon daa ngeen koy yokk mee du leen ko wàññi. final bi nag dañ ko jox gë gëddaam gëdd bi mooy dañu réitérer que parrain bi nga xam ni moom moom la ñu tuddee. final coupe de la ligue ba ligue coupe de la ligue bañ ko sosoo ba tey muy le premier ministre ren ji premier ministre bi nekk incha allah nekk nekk Amadou Ba euh, ñu ngi si ñu ngi ko si félicité am yaakaar tamit tamit dana taxaw ci final bi wante dafa am beneen particularité ren également te yëpp pour jëmmal final bi la pour jox ko gëddaam mooy Ablaye Sow nga xam ni. ñëpp ràññee nañ ko muy deuxième vice président fédération di ministre par ailleurs ah euh, moom lañu moom la ñu tuddee final bi mooy invité d'honneur bi te ci invité d'honneur bi mu jox jox na également fédération euh, loo xam ni euh, lu mu digge woon ak fédér ak lu mu digge woon ak ligue bi ligue bi di également di féliciter fédération sénégalaise de football parce que fédération Sénégal du génnewul loxoom ci biiru ligue professionnelle moom moo créer la ligue professionnelle mooy dam kay dañ koy rappeler c'est la fédération qui a créé la ligue professionnelle pour que football professionnel mu jox ko pour mu dawal ko waaw pour mu dawal ko donc ah fàttewuñu en tout cas ligue bi ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax a baax lépp loo xam ni en tout cas ligue bi soxla na ko walla mi ngi ci fédération génneewu si loxo di féliciter également suñu parrain yi suñu parrain yi dañ leen di félicité parrain yi nag yu si gën bare daana ko suñu agent marketing bi moo leen fi ci moom la jaar euh, muy dul aw moom tamit ñu ko si féliciter bu baax a baax a baax a baax parrain yi nag partenaires yi plutôt euh, mooy ay sunoom mooy port mooy LONASE mooy euh, euh, orange mooy 2S surtout nag 2 bi nga xam ni mooy tax suñu image yi nga xam ni ñu ngi ko am muy génn bitim réew muy génn ci biir Sénégal d'abord di génn biir ci bitim réew am nañu amel nañ leen jukkal bu baax a baax a baax waa 2S di leen féliciter en tout cas di leen di leen di leen di leen di leen ñaax également xam nañu également tamit final bi tamit nit ñi seen image yi nu mu daan rafete bi noonu lay rafetewaat incha allah waaw léegi donc daal final bi lu ñu si bëgg daal loo xam ni yaakaar nañ ko si parce que ñaari équipe yi dañu nekk ñaari équipe yoo xam ni waxtu ñu joué ñun amuñu benn xalaat bu bon ci final bi ci jàmm lañ koy defee ñu ngi ñaan suñu borom loolu am parce que ñaari équipe la yoo xam ne waxtu ñu dajee en tout cas ku mën ci gagné. dafay félicité moroom bu mujj bi mooy bi nga xam ni championnat boo xam ni Tëngéej moo doon joué moo dem fekk si Stade de Tëngéej ñu gañe ko ci terrain bi mais kenn xàmmewul ba match bi jeexee kan moo gañee Tëngéej def fa loo xam ne lu lu mucc ayib la ànd ak waa Stade de yi ñu toxal ko yëkkati euh, kontaan loo public bi ba Sénégal yëpp di ci wax ñu ngi ñaan yàlla daal loolu amoon ci fee tamit yan na amaat ren quel soit le résultat waaw te yaakaar nañ ko daa ñu jox parole bi bu ñu paree daañ ko daañ ci jox merci du loo nga xam ne moo war moo amee mooy coordonnateur général u final bi schéma organisationnel bi nan la final bi di tëddee dañ si génn dañ dañ ko si wax lépp loo xam ni war nañ war nañ ko def pour mu pour pour que final bi mucc ayib comme ni ko waa CAF di defee parce que schéma organisation bi bi bii muy wane nii maanaam standardu CAF la te te loolu tamit dañuy essayer football moom da ngay fexe ba lépp loo xam ne lu ñaw ñaw ñaw la lu ñu ñoŋ la ñu ñu ñu ñu ñu ñu tamit ñu ñu ñu am si habitude bi di ko def ni techniciens yi di di di di comment il s'appelle di ñaaxe seen joueurs yi pour que ñu am compétitivité pour que ñoom tamit également bu ñu génnee ñu xam ni tàmm nañu lii noonu la également organisation bi tamit noonu la ñu waree ñaax suñu équipe yi pour que ñuy tàmm organisation yoo xam ni organisation standard incha allah rabi dañ dañ si dañ si ñëw ñeen ñaan yàlla ñu en tout cas lépp loo xam ni wax nañ ko fi ci loo xam ni jub na Euh, du ci man ci suñu borom la lu jubul nag ah, nga xam ne maa ngi maa ngi siy jégalu bu baax jërëjëf. may remercier ñi nga xamante ni ñoo teew fii yëpp ci journaliste yi teew ci presse bi nga xam ne moo teew ndaxte yombul aussi nga gis euh, lu toll nii ci ay journaliste yu teew fii lu tax may wax loolu mooy joué naa coupe CAF fii Thiès ak Coton Sport mu doon match boo xamante ni quart de finale la loo xam Sénégal équipe Sénégal yi toogoon nañ fukki at ak ñeent àgguñu foofu. ñu fubal ko fii gisuñu maanaam ñetteelu wala ñeenteelu xaaju journaliste yi teew fi kon loolu dafay màndargal solo bi nga xamante ni journaliste Sénégal yëpp def nañ ko euh, ci nga xam ne moom mooy final coupe de la de la ligue. Euh, kon di leen remercier di remercier aussi partenaires yi nga xamante ni ñooy accompagner ki nga xamante ni moom mooy la ligue professionnelle ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam bu bële ñu ngi koy def. waaw bu may dellu see si laaj bi rek lan la may def euh, stade de Mbour ak Tëngéej daje final comme ni ñuy wax rek loolu. fierté la parce que entraîneur buy liggéey rek bëgg nañu peut-être nga nekk fa nga nekk ak nga jóge fa ñu xam ni kat am na loo fa joto def ndaxte wolof mooy wax toujours mu ne euh, bu fekkee góob mi baax na rek xëy na njëmban ma am na loo xamante ni baaxoon na si parce que c'est stade bu doon jiitoo am lu ñu fa defoon ñi nga xam ñoom lañ fa nekkaloon ñëw aussi am lu ñu fa def loo xamante ni peut-être moo gënoon baax ñu leen fa def ba yàlla tax tey ñoom ñu agsi fii kon di leen di félicité si maintien bi nga xam ne def nañ ko di leen félicité aussi si ñaari finaal yi nga xamante ni ñoom àgg nañ fa euh, beneen fierté mooy nga jël équipe bu championnat bi see juróom-ñetti jour juróom-ñetti journée nga ñëw si am foo xamante ni àgg nga fa si ndimbalu ña ko fekk le président ak staffam si ndimbalu joueur nga ko fekk ak ñi nga xamante ni ñooy liggéey si club yooyu kon tey jii bu fekkee da nekk si benn métier ngay liggéey si benn liggéey yàlla def loxo bi nga xamante ni tegoon nga ko si ñaari équipe yi wala xel ma nga xamante ni defoon nga ko wala effort yaa nga doon def suñu borom bi def ñaari équipe yooyu dajee final coupe de la ligue kooku fierté la si yow mi nga xamante ni yow yaa entraîné ñooñu mais tamit fierté boobu du loo xamante ni sëy fi bopp la parce que football du tennis c'est pas un sport individuel c'est un sport collectif donc entraîneur lu mu def rek dafa fekk am na ñoo xamante ni peut-être ñoom ñoo ko euh, gunge ba mu àgg foofu maag entraîneur bu nekk ak euh, caractère am ak ni muy coacher équipe am euh, comme ni ma koy waxee mooy euh, nit ki tamit ak noo mën a am jikko ak noo mën a am benn caractère je pense que am na foo xamante ni boo fa tolloo si di nga jéem a comme ni ñuy wax rek def tuuti ndox si vin bi di nga ko jéem a diluer ba nga xamante ni peut-être nam waroon feeñe wala xabtalu bi nga xamante ni doon nga ko am di nga xaw mën a maîtriser si lenn parce que aussi quoi qu'on puisse match de football si match de football lay yem ñetti résultat mooy am ci résultat si match bi di am ñaari résultat mu man parce que c'est un match à résultat immédiat soit da ngay gagné wala ñu gagné la bu match bi jeexee jeex na kon dara lu ñaaw lu am sa diggante ak ñi nga xam ne si ñoom ngay footballal ak aussi sa comportement si banc bi je pense comme ni nga koy waxee rek euh, mënoo aussi euh, wala boog doon it mënoo nekk nit nga nekk nit ngay liggéey ak moom si ñaari at bu dëgmal ñaari benn bi période Covid àggul beneen bi ren jii ñu dem ba 9 heures nit koo xam aussi bokk nga ak moom néeg avant nga fay jógee durant fukki fan je pense kooku am na relation boo xamante ni war na dox sa diggante ak moom ba nga xamante ni fépp fu ngeen daje rek dafa war a rafet je pense kon match boobu lépp loo xam am na si lu rafet si côté coaching daan ko def mais li ëpp solo mooy euh, pas sama cratère mais communication bi mën a jàll man sama diggante ak samay joueurs fexe ba nga xamante ni lépp lu ñu war a liggéey ak mental daan ko liggéey ba nga xamante ni match boobu daan ko mën a mën a gagné. certes peut-être mën nañ bañ a xaar comme ni nga ko waxee keroog match contre Stade de Mbour gis nañ match boo xamante ni peut-être xawoon naa timide tuuti euh, parce que peut-être situation match boobu bokkul ak situation finale. mais kon bu nu xaar Cheikh Gueye boo xamante ni dafay coacher match sam d'une manière très timide parce que du samay habitude samay joueurs xam nañ loolu si man euh, mais tamit benn comportement boo xamante ni. boo xamante ni entraîneur waru ko am boo xamante ni moom la ñuy développé parce que ñun ñëpp ay jàngalekat lañu kon li ñuy transmettre muy dem si àdduna yëpp dafa war a rafet. je pense que deux mille 2017 laay commencé presque yor équipe Sénégal ba léegi te benn carton jaune la ma arbitre sa jox c' était contre contre Casa Sport pour wane ni kon ak lu nu mënti def gestuelle bu nu mënti def rek defuñu ko pour lu bon mais dañ koy def pour peut être am noo xam dañ koy xabtaloo ba suñu équipe wuy suñu si loolu suñu ay xale wuy suñu loolu pour ñu mën a am ndam. pour wan pour waxaat la rek nii bu nu xaar Cheikh Gueye boo xamante ni dafay timide si banc bi euh, incha allah donte mbuur laa yeewoo dinaa war a coacher sama équipe ba nga xamante nii la nga xamante ni moom nan ma sasoon sur le plan professionnel bu boobaa ma matal ko man ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma jox équipe bi di tënkee ci football club. lii <clears throat> dafa kii bi ma ko mën a waxee mooy dañ ciy kontaan rek parce que man mooy sama première finale coupe de la ligue. nekkoon joueur nekk entre nekk dem ba nekk entraîneur te musuma final woon en tant que joueur coupe de la ligue donc bu ma demee ba tey ngay tàggat ay xale ñu ñëw ba final coupe de la ligue donc du ma def loolu c'est un honneur ak mérite la ah di di di féliciter ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari camp yëpp muy Teungueth FC ak Stade Mbour seen dirigeants yi des deux des deux parties ah ak les joueurs aussi ñoom tamit booy xool dañu wane comportement bu rafet bu baax. di ñaan rek keroog jour final bi samedi incha allah comme ni ma ko waxee tëngeej ba ñu ñëw tare tare boo xam ne mën na nekk ah ñu ñëw. voilà ñu jël coupe bi facilement dem suñu yoon mooy gën a yomb que ñu koy joué. waaw waaw ñu ngi si matuwaay yëpp ñu ngi si wàccaay yi ñu ngi si wàccaay di remercier aussi suñu dirigeants yi ñu ngi def effort yi bu nekk ah di motiver joueurs yi aussi pour xamal leen ni leen rek ñoo ci ñoo ngi ci liggéey bi bu baax. te xam naa ni man li ma bëgg sa xale yi ñoo ma ko gën a bëgg ñoo ma ko gën a bëgg foofu di di wax nii rek équipe bi am nañu ñaa ñoo xam ne dem nañu voyage nii ñoo xam ne dem nañu infirmerie bi moom macha allah ba fii ñuy wax ak yéen ñi dara ñu ñëpp a ngi ñëpp a ngi au yaa ngi dégg léegi. donc ñu ngi nekk si donc loolu changé wu changé wu dara suñu liggéey yàqul dara tamit suñu liggéey parce que comme ni ma ko waxee yaakaaruñ ci kenn si collectif la ñu yaakaar boo leen xoolee sax équipe bi suñu équipe ni muy fubalee bu kii génnee bu kii duggee da naan noonu lu tax sax kii nekkoon si biti kii dugg parce que interchangeabilité moo am foofu.